convention régionale bu Dakar bu Grand Parti dafa daje ak responsable département yi nga xamante ñoo Dakar donne waxtaan ci Grand Parti doxalin bi nga xamanteni mom la wara doxé ci jamono yu néew doxalin bobu nak liko wundu fexe ba grand parti n'est que le premier parti politique de Dakar C'est ce dafa laaj avons fait. bu ñu war def bu jaar ci massification jaar ci mobilisation fexe ba nit ñi ci nous conscience ñu adhéré ci projet bien nga xamante ni moom le président Malick Gakou di projet bu nga xamante ni génnul ci suqali Sénégal mais ñu dans di convention de la région de Dakar à ci problème yi nga nous ni ñoo le Dakar de Dakar dem réflexion yooyu nag parti bi def nañ ko ñu dal suñu biir le 27 octobre dañuy invité le président Malick Gakou mu dal nous ñëw fii waxtaan ak parti bi saafonte ak nit ñi daal di relancer lu nga xamante loolu nga xamante ni moom bëgg mooy rebomili remobiliser le parti redynamiser nit ñi fexe ba le grand parti nekk le premier parti politique de Dakar et dans toute la région donc loolu la ñu amoon lu wax sotti jottali